assalamualaikum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen ziar tay ñu ngi fi ci route nationale bi ci place kan Bassirou Mbacké jeng mom mi nga xamanteni dañ ko tuddé drapeau bu reuy waye drapeau bu mag tay nak ñuy def li nga xamanteni moy remise drapeau bi dina ñew ci place bi dal di waxtane lepp li nga xamanteni tay mom mo fi am e, ci Global TV di jurbel 24 kon na tek fofu sama loxo ba ci kanam warooñu warooñu warooñu tasoo ñu yaaka ne ñu basiru ta waroñu waroñu waroñu tasoo sañu yaakaar ne waroñu wolof Njaay def ni xam nga wuure bi lu mu wax ci deru euh, ci bëyu bopp ci wanag bi rek dañ naan der bee tax nit su ngeen bokkee nekk bokk kii loo wax ci moom dañu yaakaar ne yow xay na intérêt tax nga di ko wax mais wax dëgg yàlla xale bu yaru la xale bu baax la ñi nga xamante ni ñoo fi teew nga xamante ni mooy délégation bi nga xamante ni ñoom ñooy artisans yi fi teew yëpp ay xale lañ yoo xamante ni ay bañkat lañu ñu bëgg seen bopp nangoo liggéey seenu ñaq rek la ñuy dunde kenn defalu leen dara képp ku leen nax dangaa nag ñoom keneen ku leen jaay naqa dara ti dañ lay woon ginnaaw parce que ñoom loolu mooy seen habitude ñoom ñi fi teew ñëpp lii ngeen ko tuddee nag programme la boo xamante ni wax dëgg yàlla def ngeen lu rafet tudde ngeen ko it ku ko mat a tudde ndax ki ngeen ko tudde moo nekk président mouvement bi nga xamante ne mooy mouvement PAM bi nga xamante ni dafa regroupé mécanicien tôlier peintre électricien ak artisan yu bari fii ci Diourbel moom moo ko moom moo nekk président bi mi ngi toog dend ak vice président bi Mafatim Diop. association boobu ñuy wax euh, force ouvrière itam moom mooy coordinateur bi moo ko coordonné fii à Diourbel loolu itam am na solo yéen nag wax dëgg yàlla def ngeen loo xamante ne vraiment nun ngeen ko defal nun ñi nga xamante ne nun noo di ay kilifaam ak ay xaritam yi toog yépp kenn tardewul kon lii ngeen def bu ngeen ko defee rek nun ngeen ko defal ñoo ngi sant yàlla di bëgg daal programme boobu yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak Euh, bas nag ni mu fi mu domaine bu mu feete dañ ko ciy ñaanal rek te man la ma ko waxoon loolu laa koy waxaat tey te suba loolu laa koy wax du ma ànd ak dellu gannaaw te bas dafa ànd ak man te na woon ba ma koy wax loolu li bés bi amagul te man waxuma uus de man ko tuddee yàlla xam na ko bi ngeen ñëw fii nii dafa tombé juste ma ñëw fii indi sama woto ñu daje fii ngeen indi enveloppe bi pour pour pour pour deloo bas njukkal kon loolu kon dañu fee daje mhm. ba mu waxee da dama ko ne ah lii doy na waar parce que ñi lay indil cër bi suma njabot lañ te en tout cas biñ koy def man nekkul ma leen sibul bas wallahi al xam na ko te bas mi suma njabot la bok ak bép ak képp ku bok ci bas du domam du soxnam du yaay du leneen ñepp xamna naa leen kon bas yow tam dañ lay ñaanal suñu borom yalla taxaw la benen bi tam ous même suma du décor doon ci lamb ji damay ñew te itam def ma ci décor dama ko né le 8 pen ngañ mo doon ñew ci lamb ji mais sal digi mo ñew le 8 inshallah kon bàyyi ngesul ji day sama mam yow yaay sama baay séeréer ma su ko yab ci biir mbayaar maa ko daa fanaane xool ba min wi ñu ne kudul séeréer demal nga tëri bu ngeen xëyee ngeen ñëwaat bu nu xëysee fekk ko mu naan gësul gësul jaañ góor day gësu gësul gësul jaañ góor day gësu naan gësul gësul jaañ góor day gësu gasul gasul jaañ gasul te jii ma way la bari jom lool bas bari jom lool jeng am jom lool maam ya nga basiro bas faatuma du maam bilaay bas koo seqal te ko loxo basiru jong bilaay koo àndal te ko loxo tubarka la la cat nga ànd ku baax nag def ko bàyyi muy bàyyi ale càmmee bàyyi àlla tey ñun kër gu mag ku la xam yàlla ak moom a tax kon tey boo wootee tubaar la man awma temps awma jot mais mu ni ma pend nag ñëwal ci woote bés bi ndax yow nag jëng saalo coro ba jigéen boo wootoo neexul ko wootee dootul neex barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñu lay ñaan yàlla nag sa garaat bi yàlla nañ la ko takkal nag ba di ko takkal say doom euh, Basiru Mbàkke jang nag man sama kanam la ñëwee gaaraas di xale bu ndaw xam nga booy raam sa baay waaj doon mécanicien ñëw nga sigi di xool sa baay si xool tëneem mbir mu neex la nga bàyyi jàng bàyyi lépp loo doon def suñu borom def ñu jox ko uh, suñu benn mbokk bu ñuy wax uh, ma jëmb faal mu yar ko bi muy ñëw atelier man atelier man fekk ñun ñoo nekkoon apprenti yu mag yi mu ñëw doon xale ça va voilà moom mu ñëw doon xale suñu kanam mu nekk fa nekk mu rafet am jom am fulla am fayda nekk fa ba jamono ji man sama bët mu sa jóge si moom moom it ndaka jekk man gis naa ne kii ma sama may xel parce que lu mu jàdd lum mu ndaw ndaw ndaw su ma ko waxee du ko xeeb dina ko def kon bas lii nga am nii merit la te yàlla na doon sa muur laay yàlla na ko muur ñu ngi sant bu baax mu jàng métier jàng métier ba jamono ji bañ ber ko mu ñëw ci atelier bi ba léegi di ku am fulla di am ko fa ku am fayda musuñoo dégg bas ci lu bon musuñu ko dégg bas ci lu ñaaw ndaka jekk ci farata ak sunna la ñuy gis bas kon bas foo ñu woo dinañ la fa wuy si ñun garas gaynde lañ dëkk ñu ngi ànd suñu délégation bu mag ay ñoom garas jaañ ak ak euh, voilà ñoom alaaji Mbàkke a nga ne ñun ñëpp ñoo ñëw def délégation ñëw fekkee bis bi am na ñeneen ñoo xamante ne Saal Njaay xam naa war naa ñëw mais xam naa ne war naa ñëw ndax jaar naa place waaw voilà waaw kon ñun ñëpp am nañ yéene pour ñëw fekkee bis bi promoteur bi tamit di alaaji Ousmane ñoo ngi lay ziyaare bu baax yooyu tam di la tatagal di rafetlu li nga xamante ni nii moom nga defal Bassirou Mbacké Dieng boo ko defalee Bassirou Mbacké Dieng rek mel na ne artisan yi njaareem nga ko defal ndax artisan yëpp taxawu noon Bassirou Mbacké Dieng ba yëkkati ay mouvement ay association ay yëpp teg ko ci loxoom moom itam mu koy doxal ni nga xamante ne nii vraiment sedd na xolu ñëpp parce que gis na ni nga xamante ni noonu la taxawee secteur bi ginnaaw bu loolu amee élection yi jàlloon muy élection chambre de métier dem na ci yàlla def li nga xamante ne nii ki nga xamante ni moom la wërsëgam nekk ci mbir mi mi ngi ci ndax yéene ji gis nañ yéene ji ak taxawaay bi nga ne am ci artisan yi ñuy ñaanal président bi nga xamante ne nii tamit moo fi nekk ah yàlla nay njiglaayam te yar na satisfaire artisan yi parce que loolu rek loolu lañ soxla woon parce que li fi nekkoon danoo gisoon ni maanaam vraiment loolu nekkoon na loo xamante ni changement lañ soxla woon parce que niveau technologique yi génn na yeneen ak yeneen ak yeneen génn na ñu ni lan jël essayer changé teg ko ci loxoom loxo keneen yàlla def na teg nañ ko ci loxoom it ñoo ngi koy ñaanal jàmm muy euh, njiglaayam di ñaan tamit ba Bassirou Mbacké Dieng bu ko yàlla bu fekkee gën na ci moom ah yàlla na ko sunu borom jox di ko rafetlu bu baax a baax a maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di jéggalu ci toogaay bi yàgg na lool mais nag euh, Bassirou Mbacké Dieng jar na lu nekk parce que moom mooy candidat de la jeunesse kon ñun su heure bu ñu woowee rek dañuy bàyyi li ñuy def yëpp ñëw di wax ci turu jigéen ñi ñi fi nekk ak ñi fi nekk ñëpp ngeen baal ma nag baat bi dafa xaw a dee tuuti dama soj mais xam nga ne suñ ne dañuy sargal Bass loolu mooy wane ne dañuy sargal Diourbel parce que bas boo ko séenee muy dem bu ko laaj lan lay wut de xamal ne lépp loo xamante ne nii waa jur ba soxla nañ ko basi loolu lay dox lépp lu artisan soxla basi loolu lay dox xam nga yéen da ngeen ne dañ ko gàttal mu mënoon ngeen ñoo bàyyi rek ñu wax li ñu xam si bas ndax kon fii la ñuy fanaan bas heure bu xëyee mi ngi ñuy woo mi ngi ñuy nemmeeku mu ngi xool lu am suñu place lu fa amut ñu wax ko mu dox ci te pourtant a loolu am na ku mu waroon de mais moom ci loolu lay dox moo tax moo tax ma tuddee ko candidat de la jeunesse. Basir gis nga lii ñu lay sargal la wit doo ci wedde ndax am nga nag ay jigéen yu am fulla ay jigéen yu am fayda yo xamante ni heure bu ñu xëyee dañuy takku te ñun ñii rek nga gis bu boobaa di nga gis leneen te lii nag teeñ bi la yéen bi ñëwagul lii ci kanam moo raw téeméeri junni yoon lii war a ñëw na yow ministère sax di nga fa dem ministère di nga fa dem ndax ñaare la ñor te njaareem ñor nag ñun ñi nga xamante ñoo dëkk njaareem dañuy takku ba dëgër ànd ak yow mel ne takku naa naa ci yow di remercier ki nga xamante ne nii mooy promoteur bii di xale am nañu ko fi jiitu waroon koo def te defuñu ko yow nga ñëw am xel boobu yal na la yàlla lafal cat drapeau bii nga xamante ni moom nga tuddee bas chaque année dañ koy feete fii laa la ko waxee chaque année bas nga koy jox te doo si wéet loolu man maa la ko man Thérèse Diop mi taal bi baaba Babacar si te takkal li ma la wax. Euh, dama naan Basiiru nañ koo ñaanal gudd fan rek ndax bu ñu nee Basiiru Basiiru mooy njaareem Basiiru bu ko waxee Basiir mooy njaareem te dañ na doomi ñey nañ ko ñaanal gudd fan buñ ko ñaanal rëy moo tax ma ne bas mii nañ ko ñaanal gudd fan buñ ko ñaanal rëy ndax man li may wax dama ko xam te fii laa ko waxee woon te li may wax moom xam na ko ma jëmb Fall mi ko jàngal métier ba muy nekk ci Serigne Diagne maa ngi nekk ci Ndiaye Jësel it dama ko ne doxalal maa ngi sa ginnaaw ku la fakastal ci man lay fakastal ku la mbëkk man lay mbëkk te may doomi fara ndangal ma nag man fara ndangal ma nag ndangal ma gii dee maam kenn ku nekk xam nga ko ca Ndeela Fall bu taxawee di naan café lambay sama maama tax muy naan café lambay fa fa fa fa nga xamante ne tey fa la lycée lambay ba nekk sama maam moo fa toog moo fa nekkoon ba ñuy togg xeere di ko def ay ngànnaay booba sama maam moo nekkoon foofa jiite juróom-ñaari mbaar mbaari ñeeño yi te li may wax waxoon tuuma ko de te bas mii li koy wax xam na ko bu baax man du ma ànd ak kuy ragal te man ragalu ma te duma tiit te aw ma du ma yooyox yi te bas mi lool laa gis si moom moo tax ma ànd moom ci kattanu yàlla nag li nga xam ne moom lay wax fii laa leen ko waxee bu sobee sëñ Touba ak sëriñ du Baaxe Mbacke mu ma yaakaar bas fee mu bëgg dina ko toog nañ ko ñaanal rek ndax cat dafa gaaw moo tax ma nañ ko ñaanal bëgguma cat jiitu ko nañ koy ñaanal rek te it euh, promoteur bi li mu def da ko war a def ndax bu dee artisan jëlaat mbiram teg ko ci loxo artisan ci artisan boo xamante ne maanaam day gone ñu jiital ko ci ay kuréel yu baree bari ndax loxoom dafa set motax ñu jital ko ci kurel yu bari te limu mëna muñ man mi nga xamné ne jitu mako jiitu mag ko muñ mu tëddee nak te limay wax ni sama akulay ta ko xam ndax man duma ma duma duma ne duma duma duma ma kuma dara la seigne Abdoulaye waxon rek ndax ki defar kër bayam dina ko sant dina ko gëreem te bas mi nak euh, li nga xamantene ne dama koy wax ndiaram gi biñ ko tegee loxom ci ci kanam ba ni si geroog bi mbas mi amee mbas mi bi mu njëkk ñëw maanaam bas dafa ñëw génne xalaatam mécanicien bu nekk njaarim gi taxaw nañ fa yóbbu nañ fa ordre civil yóbbu fa siwo yóbbu fa bureau bu ñuy raxasee def ci robinet lépp kon kooku bu defee loolu bu nee euh, njaarim gi dafa bëgg ànd ak artisan yóbbu ko loolu man dama koy gëm te dama koy dund te dama koy rêvé nag te ni ma koy rêvé giñ ñaa ko sëñ Tuubaa ne jàpp naa dina dina am ci kàttanu yàlla. ziare itam grand bas mu def moom itam acte boo xamante ni acte bu ma neex la aussi ndax Ousse bi mu xalaatee affaire bi moom ak njool dañoo waaxu ñëw ba sama place dañu man dañ ko dama bëggoon a tëgg benn mbappat loo xam ci parrain affaire yooyu man ko ah, man de kenn dong laa xam ne am naa ci moom yaakaar ne su ma demee ci moom dina ma nangul muy grand bas bi ma ñëwee ci moom man ak moom Ousse ak njool mii ñu toog fii ba ma ko waxee itam da ko rafetlu lool kon tasut sama yaakaar ci côté boobu noonu. waaye tàcc leen loolu waaye. maa ngi ko ciy sant itam di ko gërëm daanaka damaa mën a wut wax waaye en tout cas sama xol seet na ci moom maa ngi koy ñaanal nag lépp loo xamante ni bëgg na ko ak fa mu jëm yàlla na ko fa yàlla yeggale ak jàmm waaw di mi nga xamante ni moom itam moo nekk ne zal Congo te ñu ànd ak moom moom mooy Mago Lac Rose quoi non daam <laughs> ay jële santa ci leen tout d'abord euh, dañuy euh, sant yàlla julli ci euh, sang suñu yonent yonent yàlla yonent ba di Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di nuyu euh, sëñ bii di sëriñ Bassirou Mbacké jeng di nuyu képp koo xam te ne ma maanaam teew nga yéen ñëpp nuyu nañ leen di wax ne euh, dafa am lu waral ñu tuddee ko ñu tuddee sëriñ Bassirou mi euh, bës bi mooy Ouz Production day ab jeune dem ba benni moment mu xalaat ne dafa war a yëngu ci luy jëmmale Diourbel ci kanam mu xool lam mën la mu xam muy làmb mu nekk ab jeune soobu ci dem ut carte promoteur fas yéene jàppale jeunes yi nga xamante ne parce que dañuy wax naan mbéy sa mbéy ci sa weewu tànk jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk au niveau de Diourbel di bëre mu mu leen a may chance ñu ñu ñu ñu wane seen ñu wane seen bopp tout d'abord léegi kon ñu xool kon ana ñan ñooy yëngu si liy jëmal Diourbel kanam jëmm jii di Serigne Bassirou Mbacké Dieng bokk ci ñu ne kon nañ ñëw daal di koy euh, euh, dugal inclure ko ci li nga xamante ne moom mooy suñu dox mooy Diourbel d'abord Diourbel d'abord ba paré do ra xol nu ñu def ba dem au niveau national mais nañ commencé si Diourbel ndax Diourbel kenn du kenn duñu fi fekk diñu ko diñu ko diñu ko defaral noonu la mbir mi day muy première édition nak ah Ousmane mi di Ousmane Ndiaye di ab jeune product euh, euh, euh, promoteur ànd ceeg staffam war ko organiser le 8 janvier stade Elimane Fall waaw lool la ñu santat leen yeen ñep gërëm leen drapeau bi nak mom lañ ñëw pour dal di ko ko dal di ko ko jox ñu sant ko itam ci parce que li tax dévouement bi ñu gis si moom dévouement bi ñu gis si moom ba ba ba ko tuddee drapeau bi ñu ñëwee def ñu ko wanaat ndax bi ñu ñëwee présenté ñu ko amu ci amu ci benn jafe-jafe parce que xam na ne Diourbel moo ñu ñor te moom moo ko ñor ba ñëwee amul lan lu mu wax lu dul maanaam accepté naa ko loolu tam ñu sant ko ko ñu sant ko si bu baax xamal ko ne su subaa itam lépp loo xamante ne mu ngi koy def mu jëm mu jëm si luy doxal Diourbel bu ñu fëggee ñu ubbil ko ndax ñun itam jurbel dong moo ñu jurbel kese moom moo ñu moom moo ñu ñor loolu rek laa ci amul lu may wax di sant ñëpp di sant itam ñi jarut ma leen di présenté parce que day mel ni day day mel ni leneen parce que ñu ñoo bokk liggéey bi di leen xamal ne incha allah dana dana neex te ñëpp nañ ci gis seen bopp jurbel moo ñor ñu waxaat ko leneen ñor ñu lu jurbel ndax kenn du ñu fekk fii nii duñu defaral jurbel déedéet ñun jurbel waay yi ñoo ko war a defaral suñu bopp te ñun nag ñu ngi si képp ku ñu gis itam nga yëngu ci luy doxal jurbel danañ dana ñëw ànd ak yow parce que kenn mënut a dem sans nga ba sans sans sans kii euh, sans culture kenn mënut a dem sans mécanique ainsi de suite sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen loolu la ñu amoon ci wax. waaw maa ngi sant ñi nga xamante ni ñoom la àndal muy sama staff bi waaw di si jiital wut sama xarit sama lépp la waaw Zal Mbagnick sama xarit la sama lépp la grand ji bi fay moom suñu grand la suñu lépp la. Euh, parce que kii moom Modou moom awma lu may wax si moom <laughs> moom tamit sama grand la sama lépp la yow njool duma la sant waaw di ziar grand Bass ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg moo ko xam te aussi tamit suñu borom daf koy defal ndax xamale moo tax suñu borom daf koy defal dafa dafa dugg si làmb dafa dugg si làmb ñun ñu nekk xale boo xamante ni ñun dañoo xam làmb ndax dañ see yàgg dañoo yor ay xal ay rak yu bëre ñu yàgg si te ñun dañoo xam sax ne moom dafa posé woon candidat ñun dañ ko yéex a xam mais comme que yàlla dogal na ñun xam na ne dafa posé woon candidat mais jàppale ne ah euh, saison bii di ñëw incha allah bu ñu ko woote waatee yàlla xam ne ne fii laa ko waxee ci buntu garage bi bu ñu ko woote waatee incha allah bas moom moo koy jël loolu moom man maa leen ko wax waxuma pour lu ko neex waxuma pour dara li lii man maa ko wax te loolu mooy am incha allah nan ko ñaanal xam ne jeune la lii yombul engagement bi mu am nii yombul xam nga da nga ne man xale laa te jël engagement mais moom engagement bi am nii yombul ñu ngi koy ñaanal lu mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yeeg suñu borom defal bis ba nag comme lii Grand Ndiol wax rek nangeen ngeen a ñëw rek incha allah làmb ji amul violence mbapat la cosaan rek moo fa am quoi culture moo fa am cosaan woy séeréer cosaan waaw loolu moo fa am na ngeen teel a ñëw ñu dalal leen làmb ji làmb ju mag la daal nekkul làmb ju ndaw ndax kin ko tuddee nekkul ku ndaw si dëkk bi waaw am na mérite bu ëpp lii te lii première édition bi la deuxième bi incha allah chaque année dañ ko di def waaw ñu ngi koy ñaanal nag li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal ndax euh, jar na ko quoi waaw ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal staff bi Oussou production bi jàmma ah. di ñaanal suñu yumpaañ ah, ak suñu yaay ah boobu ba léegi ñu fi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen wax ni incha allah le 8 janvier na ngeen teel a ñëw rek incha allah na ngeen teel a ñëw xam nga waa stade la na ngeen teel a ñëw ñu ngi leen ci woo bu baax a baax nit nag amul lu dul bisam bas bisam bii xeebu ko xeebu ko benn yoon. te incha allah man mi nga xam ne man maa tëgg làmb ji xeebu moo ko te bu ngeen fa ñëwee incha allah ngeen xam ne uus xeebul bis bi lépp loo xamante ni làmb daf koy am incha allah bis bi dina ko am incha ñu ngi si woo ñëpp di si woo daal bu ñu limee dañuy juum waaw mécanicien yi bu kenn des nag mais bu leen sol tëni ngeen sangu ba set ñëw incha ngi leen di bu baax baax dimanche lay tombé le 8 janvier dimanche la incha allah ñu ngi leen di bu baax a baax drapeau bi bu mu tàqat huile de dégg ngeen <laughs> ay ci ndaysan ci tan ngërëm ñel na la yow mi nga xamanteni Ousmane Ndiaye yow yaay promoteur bi. kon mais ous li nga def tay comme ni ñu koy waxee dama ci am contente bu baax ci ñaari côté ben bëgg na lamb bëgg ba nga xamanteni képp ko xamné da ngay jappalé lamb dama lay japp waaye nak mu fekk ko xamanteni ni aussi day japp ci côté bo xamanteni aussi moy deug deug sama art moy secteur de l'artisanat ki foo ko gis muy dem rek luy doxal le secteur de l'artisanat ci kanam rek lay wër. lii aussi du sens am méritam la daf koo liggéey gis nga lii am tey xaalis mayewu ko leneen mayewu ko lu dul yëpp doomu aadama yi mën nga am sa xaalis ut sa base ut say seize waaye mbooloo mi toogal la ba heure bii nag ah li naan kii xaw ma ni ma koy def nangu la dafa tax te bés boo gis nag day fay bés wala muy lebal bés parce que lii yaa ko lebal artisan yi moo tax lii lancement la comme ni ko Thérèse waxee léegi bu jour baa ours di nga gis loo mës a gis ndax le secteur de la l'artisanat ñun donté dañuy wax le secteur informel mais fulla ci ñun la fekk baax ah ku ñu jappul jàpp ñu la waaye nak képp ku ñu lebal ker na la leer na guddi lan lay fay kon bas li du sens mérite la mais mun doona ñak kon faawu ñu sànni ci kàddu yi jërëjëf doyen Bas. merci merci merci Lamine merci merci merci euh, asalaamaaleykum wa euh ñu ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax. xam naa kàddu yi nag moom kàddu cant ak ngërëm rek lay doon parce que daanaka li ñu war a wax yëpp wax nañ ko donc kon li may mujj rek xam naa moom laay njëkkee parce que temps dafa xaw temps dafa cher parce que boo xoolee tey nga xam ne artisan yi am na fu ñu luñ ma lebal ci lu bare bare bare bare bare parce que boo xoolee tey ñii wàcc nañ war a dem seen kër depuis boobu loolu ñu ngi toog sangu ji wuñ demuñu seen kër ci ay kilifa donc kon vraiment ñooñu dañ leen remercier bu baax a baax a baax a baax wane nañ ne artisan artisan ñooy mbokkam wane nañ aussi tamit ne drapo bi seen drapeau la du sama drapeau parce que bu ñu tuddee bas drapo yaakaar naa ne ñoom ñoo tax ñu tuddee bas drapeau parce que bas xëy na peut être liggéeyu fi lu jar ñu tuddee ko drapeau parce que kon mbooloo mi nekk ci ginnaaw ak li nga xamante moom lañ ko dégg mu koy saytu di ci dox te ñoom ñoo ci jàpp parce que bu fekkonte ne bas rek la mbir mi mënul dox donc su fekkonte ne man rek la kon mbir mënul dox kon bépp bo euh, organisation boo xam ne jiital nañ ma ci équipe ñooy liggéey xëy na nag njiit mënul ñàkk parce que ñëpp mënuñu jiite il faut ñu jiital kenn ne kenn kii mooy jiite depuis tamit yàquñ ci dara parce que boo xoolee organisation yi nga xam ne dama ko jiite yëpp dama ci ànd ak ay ñuy liggéey ñoo ñu ñu dynamique gëm seen bopp surtout soxna yi aussi tamit vraiment di ma jàppale chaque instant ñu ngi may nemmeeku di xool ci lu ma nekk lu baax ñu ne ma lii la programme bu am aussi ñu ne war nga doxee nii war nga doxee nii vraiment dama leen di euh, remercier encore une fois di sama jigéen yi vraiment di leen tatagal di leen wax ne vraiment ñoom lépp loo xamante góor moo koy def taxawaay boobu am nañ ko la Lion de Baol laa leen tudde ay jàmbaar lañ yaakaar naa presque kenn jiituwu leen fii ñu nekk ñu gëm seen bopp gëm secteur l'artisanat di ko doxee di ko waxee ñu àndoon ci élection yi liggéey ci liggéey bu am solo ñu dox ci dox bu am solo donc kon vraiment dañ leen di bu baax di leen jaajëfal Euh, beneen bi ci topp di ndiw sama waajur bi mooy Pa Thiam dañ koy nuyu di ko jaar baax gis nga nii mu toogee nii su xëyee nii lay toogee si man bu ngoon jot su ñëwee ana ataay bi lay wax lëwal bi ñu teg lëwal deuxième une heure bu oo oh, fekkoon oto bu pare nañu yóbbu ko su pare wu ñu déposé ko mu ñëw su may xëy da bu ma xëyee huit heures huit heures demi la may woo départ nga wala départ ko ma ne ko maa ngi waaj départ su ma départ ci bunt kër gi laay taxaw jël ko ñëw ci kilifa gu toll nii kon donc dañ koy amal njukkal bu baax a baax di ko sant di gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom

équipe qui xamné ne ñoo àndandoo di liggéey parce que bi mu dima wax lolu dama parce que bu jeune bu bëgg def ci secteur l'artisanat parce que yor place donc kon daf ci bolé li nga xamné moy lamb parce que xam na ci ci développement parce que ay ndaw ñoo aussi tamit ci dara seen nga wutal ay programme lancer non seulement bu dul xaalis bi sax mais dalay lancer appel boo xam ne aussi ci kaw dinañ dinañ leen bàyyi xel bu baax su ëllëgee te comme li ñuy wax dañuy commencé di door yàlla mun a def ba yeneen ak yeneen ak yeneen topp si donc bi mu ñëwee di ma mbokk kama di ma ñëw keroog jour bi ñu ñëwee di pour di ma euh, expliquer problème de rapport bi ñëwee dama ko ne loolu amul lu ma ciy teg amul lu ma ciy wax parce que non seulement ay jeunes ngeen gëm seen bopp ci ñun loolu la ñuy dox parce que li wax rek ñun amuñu parti Diourbel mooy suñu parti comme ni ma waxee Diourbel mooy

donc vraiment kon ñu ngi sant bu baax a baax aux production ak euh, équipe bi nga xam ne moom lañu àndal di rafetlu aussi tamit xam ne lii yomb la comme ni ko Lamine waxee sànq mën nga yor xaalis mën nga luy ay baas mën nga luy ay 16 mais ay nit mënoo leen jël kon donc li ci nekk mooy am ak taalibe gëm sa bopp dëggal sa bopp te koo gis jàpp comme sa bopp parce que fi kenn gënu fi kenn ah te kenn du doowaalewul dara te booy dem doo yóbbaale dara donc li fi nekk mooy gëm-gëm moo fi nekk gëm sa bopp te li may wax chaque jour rek Euh, nee naa artisan ñun ñëpp xamante suñ biir mais képp koo xamante yàlla dénk na la dara mu leer ne la nga am mën nga ci régler say problème jàpp la ci artisan yi ci sant yàlla la bokk parce que joxe yombu la ah. joxe soxla la nag mais suñ borom bul ko defee ci yow tamit du sax njàmbaar tamit da nga koy sant yàlla rek xam ne yàlla moom moo ko togalee noonu kon donc vraiment daal ñu ngi remercier encore une fois Lamine ñu ngi lay béggee bu baax vraiment sa kàddu yu rafet sama coordinateur Ndane Diop maa ngi koy nuyu bu baax Euh, groupe consultation <laughs> maa ngi koy nuyu di ko donc di nuyu ñëpp di jaar ñëpp di wax ne daal lowit warul mën a warul mën a parce que li gens na ne du bas lañ tuddee drapeau bi euh, artisans yi lañ de drapeau bi artisans yi nag waxuma sax mouvement parce que jiite naa ay mouvement mouvement PAM mouvement mécanique automobile de région de Diourbel la beneen bi ci def mouvement force ouvrière mouvement politique de développement du secteur de l'artisanat amna tamit groupe consultation bo xamné dañ ko créé woon euh, coordinateur bi ngi ni muy Dan Diop ci élection yi dañ ko coordonné woon dañ ko maintenir bo léegi di ci dund ci jëpp jafé jafé jo xamné ñu ci artisan yi parce que mom mom yaakaar naa liggéey liggéey sax defatu ko mom chaque jour chaque instant bi ngi coordonné damay woo téléphone sax dama koy bàyyi ci bi dama gis appel bi dama koy bàyyi ci bi parce que moom donc secteur bi rek mom ko ñor chaque jour mu ngi xeex mu ngi dem radio invité artisan yi laaj leen seen jafé jafé ñu expliquer ci su ko defee ñu yaatal parce que comme limay wax rek toujours dama né

ñu àndandoo bokk Diourbel ñoo am Diourbel ñoo moom Diourbel fexe nan la ñuy defee ba secteur l'artisanat bi dox su leneen xewatee nag ñu xam ne peut-être élection moo ñëwaat dañu war a liggéey liggéey parce que nee naa ko moom li ma lay wax moom man du ma bàyyi man du ma léegi nag problème bi mooy mais instant bi du instant ay jàpp ay xëccoo wala yooyu non non non instant bi jamono liggéey la donc nañ jàppandoo ñu liggéey liggéey bi xool secteur bi nan la ñuy def pour mu mën a pour mu mën a dox donc daal vraiment kon maa ngi sant ngërëm ñeel na ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen charré di leen euh, masawu aussi tamit parce que toogaay bi metti na gars ñu ngi sol seen seen i toog te lépp grâce à man kon donc vraiment aw ma seen fay aw ma seen fay sama xol dafa fees ba peut-être xëy na wax bi sax day xaw a des parce que dama dama kontaan daal dama kontaan de trop dama kontaan trop parce que li yombul li yombul man xam naa ne yombul si Diourbel donc li su amee damay xam ne waa Diourbel dañ ma sas. et dafa am am na fu ñu ma teg kon lépp lu ma góorgóorlu woon rek dinaa ko yokk ci kàttun yàlla ak ndogalam te lépp loo xam ne jafe-jafe artisan yi la te ma mën ci dara muy lu ma wuti muy lu nekk ci man dinaa ci def lépp loo xam ne war naa ko ci kon donc daal vraiment ñu ngi sant di leen gërëm bu baax di sant équipe bi di leen wax ne vraiment euh, Lomit moom ñu ngi ciy woo ñëpp euh, bu affaire yi yomb daal na metti da metti waaw donc kon vraiment sant ak ngërëm ña leen jërë ngeen jëf merci beaucoup maa ngi nuyu sama sama jëf jërë jëf. waaw kon li amoon foofu mooy remise euh, drapeau bi ñu ñëwoon fii ci place Bassirou mbaki Dieng kon gars yi mi ngi noonu ñoo ko gisandoo kon euh, di jaajëfal sama xarit bi Mor Mar Highlander Baye Maam Cheikh kontaan naa ci yow bu baax a baax yal na sa jaamu yàgg kon kar leen ko ci Global TV di Diourbel 24 abonné leen nag abonné leen noonu rek lay demee saa su ne jaajëf gars leen vidéo yi ca ngërëm ñeel na leen.